fii ci garage péage eh, xar kanam gi yaatu na lool eh, ñu fekk fii ñuy jaay waaye itamit eh, comme nu muy wuyu ci turam rekk ay chauffeur yu toog di waxtaan ñoom nag lii lañu ñu teg ci suñuy loxo. waaw fi la ñuy yëngatoo. fi ngeen di yëngatoo lan ngeen ñu fi mën a wax. waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu di leen nuyu yéen waa Leral TV ci turu. suñu président Gora Ndiaye Gora Mbaye ñu kon koo xam ci turu Gora Ndiaye ak ñi topp ci ginnaaw bi yëpp ci ginnaawam ñëpp du leen jox nuyoo bi tey du jàllale nuyoo bi ci turu waa garage bi yëpp bépp membre bi ci bokk rek ñu ngi jàllale turam nuyoo bi ci turam ak soxna yi fi bokkal nekk di yëngatu ñuy yëngatu ci wàllu njaay mi ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare di leen nuyu di leen sant bu baax nag ci ñëw gi ngeen fi ñëw laaj bi nga ñu laajit den ci jéem a nab nabi ndax fii ginnaaw bu yàlla jaalee man maa fi mag ci sëfoor yi fi daw yëpp yaakaar na ak même ñi fi yëngutu ñëpp maa ci gën a doon mag waaw bët ki démb da lañ def suñu assemblée générale fii ci Daqaar Mbay Kër Bara Mbay falaat suñu président muy Gora Mbay ñu gën koo xam ci turu Gora Njaay di leen xamal na ne garage moom wax dëgg yàlla dañ fee daje di fi yëngutu doon mbooloo mu doon benn bokk lu ñu bëgg bokk lu ñu bañ ki gën a doon mag muy man ba ci ki gën a doon gune koo fekk rek mi ngi mel ni fekk nga fi ñëpp ñoo bokki lu ñu bëgg ñoo bokki lu ñu bañ li ñu bëgg mooy lu baax lu tegu ci yoon lu jub li ñu bañ mooy lépp lu ñaaw te bon soxlawuñ ko fi liggéey bi fii nii nan la demee. liggéey fii mooy bu ñu xëyee dañuy ñëw toog clients yi bu ñëwee dañuy rang nag oto bu jiitu ku ci topp topp ci ku ci topp ci bu client ñëwee ki war a yeb mooy waxaale ak client bi bu fekkee kees la jëm wala mbuur wala Tiwaawan ah, ki jiitu mooy njëkk a yeb ki ci topp topp ci wax dëgg yàlla ñu ngi fi sant yàlla bu baax ndax ñu ngi fi fab suñu wërsëg. ca na mu gën a rafete gën a sell ndax bañ fi dalee daw ba léegi ay at la te kenn musu fee jàppandi ba la ba fa taximaan ba def kon loolu sant yàlla ndimbalal yàlla la nag. léegi garage bi ndax euh, nekkin bi demee na noonu amul ay lu leen xamante ni manqué na leen. waaw ah, àdduna moom moom la yàlla bindoo am lu manqué ndax foo dem ci àdduna bi rek ña fa nekk yënguta am na lu ñu manqué waaye nag li fi manqué bari na. waaye nag dañ koy muñ te sante ko yàlla ndax it amuñu fi ndox amuñu fi courant amuñu fi dara loolaat mënu fee yomb ndax dafay jigéewul waaye teewul noonu fii la ñuy yëngatu ah dajaloo doon benn li fi manqué moom bari na. kon su ma la déggee euh, nga ni euh, mënul nekk ndax ndax gox la boo xamante ni euh, fii yëpp li ko wër yëpp amul courant. li fi courant ba nekk moo sori muy Daxaar Mbay tey du place bu ñu moom. gu ñu ko dañ fi toog rek di fi yëngatu bu ngoonee ku far sa ba sa ñibbi jot nga dem ñibbi waaw boo xëyaatee wala saa yoo yëgee ne war nga fee ñëwaat nga taalaat sa oto ñëw. ay yenn heure ngeen di commencé ba yen heure ngeen di wàcc. daanaka fii amul wàcc am na ñoo xam te ni guddi gi ñu ngi fi di xaar client yi fi wàcc guddi waaw waaye xam naa daal fii ba 9 ci guddi moom lu wér te saa yoo ñëwee di fi fekk taxi. amul insécurité ci li nga wax ndax amul courant. déedéet yëgaguñ ko fi nag ndax yëgaguñ fi kenn ñu fi tooñ wala kuñ fi lor wala kuñ fi gaañ yëgaguñ ko fi wax dëgg yàlla waaw loolu moom yëgaguñ ci dara ci lu ci wàllu woowu waaw. léegi garage bi ndax am ngeen ay toilettes ak yooyu. non non amu fi ndax suuf si moomuñu ko waaw moomuñu suuf si mënuñu fi gas toilette ñi nga gaa ñi nga xaalis boo xam tey tey tey bu ñu fi amoon fu ñu mën a gas toilette ñu mën nañ koo gasal suñu bopp. waaw ñu ngi fas yéene bu soobee yàlla bu ñu war a jàmm ñu dox ci tànk yooyu wutal ko kayit ndax du garage officiel acceptation lay doon waaw bu ko yàlla dogalee daal jamono ji koor gee tax ndax bi ñu defee réunion ak léegi dimanche bi suba lay dellusi si te dina fekk ñu um koor waaw bi ñu feree président Baïs ak léegi waaw ñu ngi ñuy dugg ci koor gi suba bu ko yàlla dogalee te bu ñu waree jàmm de toppatoo loolu ba lépp tegu ci yoon waaw incha allah. waa bokk ci association sowru péage bi ayca yan jafe-jafe ngeen di dund fii ci Galaye waaw jafe-jafe yi am na fi comme ni ko góor gi Fall waxee li mu wax rek mooy dëgg parce que ñun wërtu ca wax nag da wax na lépp maanaam fi ne nii li problème bi mooy <coughs> toilette ak foo xam ne ñoo ko moom daal mais fi ñu nekk nii moom suufu jàmbur la sunu dëkku maam nag fi la ñuy liggéeye waaw loolu daal mooy bu ñu amoon nañu gën a daal am foo xam ne ñoo ko moom nekk fa xam ne fii ñoo ko moom defar suñu mbaar mu baax defar suñu toilette loolu daal mooy problème bi. ngeen nekk fa nga xamante ni amul courant amul ndox naka ngeen di dundee jafe-jafe yooyu. waaw jafe-jafe bi moom métti na méttiwul parce que foo xam rek xam nga fa courant nag bëgg nañ ko fi soriwuñu nag bëgg nañ fi courant bi ndax wax dëgg yàlla heure boo ñëwee muy guddi oto yi jógee yëpp kon bu am na courant moom day gën a baax rek mais nag euh, burul jafe-jafe daal ndax amu ci lenn loo xam ne lu fi gaañ la sécurité bi daal xam naa ni jafewul daal parce que léegi day montance te amuñu fa benn problème daal wax dëgg yàlla waaw bu ñu amoon mooy li ñu gënal moom. clients yi ñu ngi dox mi ngi ñu ngi ñëw. Euh, waaw clients yi moom ñu ngi ñëw bu baax wax dëgg yàlla parce que euh, oto yu jógee ay Fouta am na yu jógee ay Daara Jolof waaw jëm Dakar bu ñëw dañ ñu ngi liggéey daal clients yi ñu ngi ñëw normal pare daf nañ benn réunion ba am benn président PEF muy Gora Ndiaye mooy suñu président bu bees bi. léegi seen cohabitation yéen euh, chauffeur si ak jakartamaan yi ndax ne na. waaw chauffeur yi ak jakarta ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que fii c'est la famille ñun ñëpp ñoo dëkk fii ñun ñëpp benn la ñoo dëkk waaw loolu moom amuñu ci benn problème ndax jakarta yi fii ak chauffeur yi fi moom ñun ñëpp famille lañu vraiment waaw ñun benn lañu. lan ngeen di sàkk. waaw li ñuy sàkk daal mooy bi ñuy réunion ñu ngi nekk ci. wut euh, kër association bi xool ni wute place bi def ay toilettes pour liggéey normal daal lool daal ci lañ nekk nii fi mu daal jënd di soo boo xam daal ginnaaw yàlla bon li li gën a jafe ñun ñëpp benn lanu ñoo bokk ndey ñoo bokk bay bokk nañu bëgg kon ci des moom métteetul daal vraiment métteetul ok muy ay jafe-jafe yu bari yoo xamante ni ñu ngi koy jànkonteel fii ci garage bi ndaxte ci seen ay kàddu amuñu ndox amuñu douche amuñu fenn foo xamante ni rek bu ñu soxlaa seen bopp mën nañ fa dem waaye nag ñuy sàkku maire biñ fi tabayees di Alioune Sarr mu gestu leen ci na mu gën a gaawee.